dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo diggante njiitu réew mi di président Macky Sall ak Moustapha Diakhaté mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon groupe parlementaire benn bokk yaakaar seen diggante daal na yàqu yaxeet ubbil yéen kaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal nañu ñu Moustapha Diakhaté ni ki démb commission discipline bu parti APR moo ko daal di dàq journal bi mu ñu xam xamal nañu Moustapha Diakhaté moom nag mbir mi dafa mel ni yëngalu ko ndax bi ñu ko laajee la mu xamle nee na daal mbir mi ay caaxaan rek la maanaam ay provocation la ay mag mag yoo xamante ni dañoo nekk di caaxaan moom Moustapha Diakhaté jàppul benn yoon ne dàq nañ ko ci bile parti de APR ndax mbir mi tegewul ci yoon ndax moom am na sañ-sañ nee na taxawal li nga xam ne mooy mouvement ci biir APR ndax bëri na ay mouvement moom Moustapha Diakhaté na jamono ji nag amul ab temps toog di dagga sante jox dig daje askan wi alxamis ji nga xam ne moom la ñu daal di dëgmal moom Moustapha Diakhaté mi ñu dàq ci parti bii di APR nee na nag li nga xam ne daal moo ñor jamono ji te mu taxawal ko mooy manko taxawu APR ndaw ñi bokk ci bile parti ñoom nag ñuy sàkku ci Moustapha Diakhaté maanaam mu leeral génne alal ji nga xamante ni joxoon nañ ko ko maanaam ab xaalis ci élection yi nga xam ne moom la ñu génn ngir nag mu defee ko campagne ci fi nga xam ne mooy Touba yéen a kaay gii di la témoin mu ñu xamal lan ñu wax dëgg nag réew mii di Sénégal démocratie amu fi ndax Macky Sall soo déggowul ak moom maanaam bokku leen gis-gis mu daal di lay dàq wala sax boo waxee ci lu jëm ci ñetteelu mandaam bi ubbil yéen a kaay gii di réew ñu xamal lan ñu Guy Marius Sagna moom ma ngi ci kasu bi jamono jooje nag Fallou Seck ak Ousmane Sarr ñooñee daan nañ leen di bàyyi ñu ñibbi seen kër yéen kaay gii de la turbine ñu fekk fa caat bu yaanaa maar la mu xamle nee na nag nguurug Sénégal ak ni nga xam ne moom la doxalee ci mbir yi Guy Marius Sagna da koo nag bëgg daal di toroxala Seydi Gassama jàpp ne mbir mi nag règlement de compte ci boppam moo ci daal di am yéen kaay gii de la mu ñu xamalaan ñu ni nga xam ne moom lañ doxalee ci mbiri Guy Marius Sagna li muy firndeel rek mooy Macky Sall yuuxu yi nga xamante ni yuuxu nañ ko ko ca Londres di ko wax libéré Guy Marius Sagna loolee léegi nii la wanaasu loolee moo tax mu bàyyi Guy Marius Sagna ci kasu bi du sunuy kàddu dañuy nettali ma ngi ci yéenekaay gii la témoin yéenekaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu dialogue national bi nga xamante ni ŋawtu ŋawtee nañ ko lu bari ci réew mi ñi nga xam ne ñooy waa société civile bi ñoom nag ñoo gi dànkaafu ngir nag gedd li nga xam ne mooy boobalee dialogue ndax ñoom nee nañu daal ñi nga xam ne ñooy way politique yi dañu ko bëgg aaki moo laas yéenekaay mu ñu xam lan ñu Birahim Seck bu Forum Civil moom nag dafa gedd sax ndaje ma en pleine nag réunion yéenekaay gii di libération mu dikkal ñu ci Adama gannaaw Bictigo mi nga xam ne maanaam joxoon nañ ko lu toll ci fanweer ci ay milliards ngir nag mu daal di ñuy tabaxal ab université Amadou Mahtar Mbow ca Diamniadio waaye nag moom Adama Bictigo France daal di xëddeen maanaam defu ca dara te xaalis bu nag joxoon nañ ko ko maanaam décaissé woon nañ ko journal bi mu ñu xamal laan ñëw daal di nañ koy dàq na génne ci loxoom ba mu set si wecci waaye nag bu ñu nekkoon ci réew moo xamante ni réew mu normal la réew mu sérieux danañu ci ubbi li nga xam ne mooy ab enquête judiciaire ndax nag mbir mi dafa daal di yomb loola yéen a kaay gi di source añu fekk mi nga xam ne moom lañ dénk xaalisu réew mi maanaam ministre des finances moom nag daat nay dalal xelu askanu Sénégal nee na ñi nga xam xamante ni ñooy wax ne Sénégal jamono ji amul xaalis nañu ko bàyyi Sénégal jamono ji am na xaalis kees yi ñoo ngi fees dell Sénégal amul benn jafe-jafe ci lu jëm ci mbirum xaalis kàddu yi Abdoulaye Daouda Diallo la yéen a kaay gii di réew mi quotidien ak enquête ak Vox mu ñu xamal ñu Samba saw mi nga xamante ni moom la ñu doon tuumaal ne moo rey Fatoumata Matar Ndiaye ni ki démb chambre criminelle bu ci ak dundam yépp yéen kaay gii di Les Échos mu ñu xamal ñu nag ba pare war a ndàmp nag lu toll ci trois cent cinquante milliards laas yéen kaay mu ñu xamal ñu njabootug Fatoumata Makhtar Ndiaye ñoom kontaan ñu benn yoon ndax nag nee nañu awañaa mii nga xamante ni daal ab responsable politique APR la nekk député questeur assemblée nationale maanaam mbir mi dañ ko see tudd kon nag dañu ko waroon a daal di déglu yéen kaay gii di Vox Populi dikkal ñu ci ab scandale ak giraawali ak musiba mabakumba ak njublangu doy waar goo xamante ni xew na ca Touba Mbula foofu foofee nag sous-préfet moo def ab enquête ci mairie bu Touba Mboul waaye nag dafa gis ne ki nga xam ne mooy maire ba di Mansour Niang ak ñenn ñoo xamante ni daal ay jege ñaaneem lañ ñooñee takk taxe yi nga xamante ni askan wi doon nañu ko versé ñoom nag dañu ko daal di ngembal ci noonu nag ci lañ leen teg loxo garde à vue leen defeere leen ca parquet bu Diourbel la yéenekaay gii di la témoin mu ñu xamal nañu nag réew mi di Sénégal daal bu fi sérieux amee nag maam dana leen jaaxal ndax fan yi ñu génn nguurug Sénégal ñoom nag dañoo àbb leb lu toll ci cent cinquante milliards ci benn banque bu nekk ca Londres ngir nag tabax si ab stade olympique waaye nag jamono joojee hôpital dalal jàmm radiothérapie ba moo paan teewa léegi nii nguur gi si dara jamono jooje nag àbb na cent cinquante milliards milliards ngir ab stade olympique ndax li nag dëgg la yéenekaay gi di stade mu ñu xamal la ñu nag éliminatoire mondial 2020 Sénégal jamono ji daat nay xam ñan lay dajee la Togo lay dajeel ak Congo ak Namibie journal bi di stade mu ñu xamal la ñu ñii nag ay nooy neex dëgg lañu